non aéroport bi pare na xam nga aéroport li muy lan la mooy ñu defar piste defar hangar defar euh, euh, aérogare ba nga xam ne bu avion yi wàccee passagers yi mën a wàcc mën a jël seen bagage mën a ñibbi avion yi dem ñu mën a jël seen bagage jël passagers yi mën a dem loolu mooy aéroport loolu mooy l'essentiel aéroport maintenant institution bu mel ne aéroport ñu toxu fa da koy xool ci sa kër ba toxoo ci sa kër wala nga defaraat sa néeg ba toxu fa mën nga toog une semaine un mois deux mois di am ay perturbations di xool say bagages mu nekk di xool say aéroport aussi c'est la même chose lu bees la lu bees loo xam ne dañ ko sanc mu ñëw ak appareil yu bees ah il faut mu am léeg-léeg ay tuuti jafe-jafe yi nga xam ne li ko aggravé mooy euh, grève wu euh, contrôleur aérien yi mais jàpp naa ne bu du woon loolu wax dëgg yàlla li nekk ci aéroport bi ñëpp d'accord nañ si kontaan nañ si sénégalais dañu war nag di gën a bëggee loolu xam ne nag lii lu rafet la lu baax la bañ a gis li nga xam ne ay détails la ay sooxe yu ndaw parce que loolu au fur et à mesure ñuy exploiter aéroport bi ci le personnel bi di professionnaliser wu di am yenn réflexe yi ba nga xam ne service de qualité bi ñu bëgg si aéroport bi mu méngoo ak qualité aéroport bi dinañ ko mën a am donc li ñu mën a wax mooy ñu ñu dal euh, am beaucoup plus de tolérance et de compréhension xam ne li tax ñu ubbi aéroport bi pour jëmmal taaru Sénégal ak dayoo Sénégal ak fi ñu bëgg a dem ci émergence ah population yi nag loolu ñoo ko moom waruñu ko saboter parce que dama jàpp ne li nga xam ne yaa ko moom waroo ko saboter di ko ñaawal di ci indi ay détails yoo xam ne wax dëgg yàlla gis naa ne amul fenn fuñ ko teg tey ku bëgg a tukki boo demee ci aéroport di nga tukki ci condition yi mucc ayib boo ñibbisee di nga ñëw ñibbisi ci condition yu mucc ayib loolu moo gën a am solo que waaw euh, chariot dafa manqué wala nangam dafa manqué loolu au fur et mesure ñuy ñuy liggéey mais loolu dina ñëw parce que ko def ci aéroport bi xaalis bi ñu ci def ak pas bi ñu ci am ba yàggali ko wax dëgg yàlla defe naa ne nag c'est pas les petits détails là ñoo xam ne moo ñuy tardel